asalaamaaleykum euh, sama invité bi fi maa ngi leen di nuyu euh, di leen sant tamit ci wuy si bi ngeen ma wuy si euh, di leen xamal ni man maa ngi tudd Lamine Diagne nekk responsable République des Valeurs ici à Thiès Est mais en plus nekk le coordonnateur adjoint euh, du cercle des enseignants de RV à Thiès euh, di commencer d'abord par euh, delloo njukkal le président Thierno Alassane Sall di ko delloo njukkal di ko jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xam ni ànd nañ ko ak moom euh, boobaak léegi mat na fukki at ak ñeent euh, yàlla suñu boroom dogal année ñi ànd ak moom benn groupe la woon amoon ay objectif gisoon ni war nañ mën a ànd ak moom liggéey ñu ànd ak moom liggéey booba léegi ñu ne ci dans la fidélité et la sincérité maintenant nag euh, politique am nay gis-gis et gis-gis bi saa yoo jàppee ni peut-être xëy na fi nga nekk nii gis-gis bi nga am ci politique euh, mënatoo ko doxal foofu euh, bon politique may na la nga jël sa yoonu bopp looloo waral tey ñu dakkal bépp activité ci république des valeurs maanaam pour ci olof bu gën a yomb mooy génn nañ république des valeurs man ak ñi ma àndal mais aussi di fekki suñu xarit le l'ex coordonnateur Massamba bi nga xam ni moo njëkk def point de presse génn et que ensemble génn boobu li ko waral ñun jàpp nañ ni fi ñu tey fi ñu toll ci politique war nañu euh, mën a am yeneen gis-gis am yeneen vision yoo xam ne jàpp nañ ni buñ ko doxalee euh, fi ñu yow nekkoon ci politique war nañ mën a romb foofu donc looloo waral ñu génn euh, àndandoo am loo xam ne ñi ngi koy dëgmal Euh, fas yéene ci ànd ak sénégal yi mais aussi en particulier les Thiessois pour vraiment mën a doxal benn offre politique boo xam ne jàpp nañ ni buñ ko tegee ci kanam tuuti euh, nit ñi dinañ ci gis seen bopp. donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen journalistes yi di jaajëfal képp koo xam ne aussi teew nga fi je vous remercie. les journalistes chers amis sympathisants et militants bonsoir. tout d'abord recevez mes remerciements et ma reconnaissance. la plus sincère pour avoir répondu à mon invitation de ce soir. Euh, je me nomme Lamine Diagne, membre fondateur de la République des valeurs, cadre du parti et coordinateur adjoint du Cercle des enseignants à Thiès. Nous tenons à l'entame de ce point de presse adresser nos salutations les plus sincères et les plus cordiales à l'endroit de notre camarade, notre frère, mais surtout notre ami Thierno Alassane Sall, président du parti La République des Valeurs. L'histoire mérite d'être racontée pour éclairer les labyrinthes. Vers les années 2010-2011, nous étions un groupe d'amis qui avions fini de faire nos preuves dans le milieu syndical universitaire. Parmi eux, je peux citer mon ami et frère Massamba Diop, ex-coordinateur départemental de la République des valeurs à Thiès. Ensemble, nous avions décidé de travailler à côté du président Thierno Alassane Sall et ce compagnonnage est vieux de 14 ans. La politique étant ainsi une vision, des ambitions et des objectifs bien déterminés, pour ceux qui aspirent à devenir des leaders incontournables dans le champ politique, je viens à l'instant vous annoncer de façon officielle ma démission dans le parti La République des Valeurs. Donc, chers amis, chers militants et sympathisants, à présent, je viens de démissionner du parti La République des Valeurs. Euh, nos perspectives, c'est d'accompagner notre ami et frère, M. Machamba Diop, pour qu'ensemble, nous puissions proposer aux Sénégalais et aux Thiessois en particulier une offre politique beaucoup plus ambitieuse et fructueuse dans les semaines à venir. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Euh, Lamine Diagne, cadre de la République des valeurs et coordonnateur adjoint du Cercle des enseignants de la RVTS.